ñu jox Ceerno Saydu Wele mu ubbeeku Alquraan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 nee lii lépp ki ko waral mooy Ceerno Yaxya Adama sal nee Ceerno Yaxya ku baax la ku jullite la te itam bokk na ci njaboot ñu baax maanaam doomi ku baax la te itam yàlla daal koy wër wërsëgalee mu am tamit sëriñ su baax borom xam-xam kooku jàngal ko xamal ko yar ko e nee na yar ñu ko yar ñun ñii nga xam ne ay nijaayam lañ ak ñi nga xam ne ay way juróom lañu ñoom kontaan nañ ci lool sant nañu yàlla bu baax lu woon xanaa rek ah, maanaam njabootu kër gi teew tey ñoo fekk si yëf yii ne am na si ñoom tooguñu fii ci dëkk koñ bi waaye nag yàlla andi na leen ku mel ni sunu mag Mahmoudou Moodi Thiam Mahmoudou Moodi Thiam mi ngi jóge ba keneen Ousmane Yahya Sall Ousmane Yahya ngi jóge ba Amérique ñu ngi min njettii foofu dafa mel ne ina wayno li ma doon wax ko bonnoomi ko haalde ci ne bile ki euh, commencé on jàng na ko o wi mo ngannduɗaa o no yimɓe puttode janngude no yimɓe puttode uddiri ɗum qouran no wayno ko jinnoon ko haalde on haali ɗum ak ñaani tan nekk e woy kadi e kadi e woni ko e fof ki def discours arabe bi waɗannooɗo kadi hidab o woni alhaji sow o wi e banndiraaɓe rewɓe ɓe heen ɓe fof waxnaji lepp o wi kaali fof ñu ngi sant mbooloom ku fi teew yëpp ñu ngi lay sant nun nun daal nekk taalibi rek moo nu fi andi en ɗo ko li ñu fi andi daal mooy ñëw jokku mbokk musiddagal li ñu fi indi daal mooy ñëw ngir xaritoo li ñu fi andi sabu jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu fi andi lépp lu fi teew tey la sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ahmad tijani radiyallahu taala anhu ginnaaw mawlana cheikhna ahmad tijani sharif radiyallahu taala anhu taandu yaxya adama addi en ɗo tey daal kii nga xam ne mooy ceenu yaxya adama sall moom moo nu fi andi ko rentiɗo hannde ko boo xoolee tey lii fi daje tey xam daani di nga xam ne lii tuutiwul wuuji ceertuɗi gonɗo ay barab yu wuute ñoom ñoo fi daje képp ku fi teew xalifa to galle mum to xalifa na ca këram ɓen noon o ummino addi ɗumen ɗo henna hannde ñooñu nag ñoo déplacé wu ñëw fii tey ko taki ɗum waaw lan moo waral loolu ñalaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam lépp ngir jëmmi si jublunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du Ceerno Adama Sall ak tamit macha ngir jëmmi Ceerno Yaxya Adama Sall looloo won ko wonde neɗɗo tan woni ko feewi nekk nit daal ak nite rek moo baax woni neɗɗo tan boo nekkee nit rek yimɓe soo nekkul nit rek ma nit sànni la foofu dem seeti ñu nekk nit. Ceerno Yaxya Adama. bu fekkee nag Ceerno Yaxya Adama. tan ko haqqilan taagal. bu dee rek xel rek kese. tan ko mbaax kese. so tawi tan ko wonde neɗɗo. bu nekk nit ak nite. wonde tan ak nekk jullit dëgg. yiɗande o yiɗande bandum ko. jigéen ñi ñu ngeen may ñu dégloo tuuti ngeen jéggal nu. yiɗande hoore mum yiɗande bandum ko yiɗande hoore mum ko nee na bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp u wondi heen loolu tamit yàlla dogal na ko ci ceenu Yaxya ñaago Allah ñu ngi ñaan yàlla ɗum ɗo lii dafa tàmbali rek jogorta to jogori haa ɗeyto to waaye fi mu nar yem lii kenn xamul fan lay yem فاقضي لنا جميع ما نرتجي من كل حاجات نينا ci kaw nuyoo Ceerno Yaxya Wele ci turam dendaangal ɓesgu makko ngu ak mboolem njabootam ñépp minoy e man ak samay rakk ak taalibe yépp denndaangal banndiraaɓe ak mboolem sunu mbokk yépp e mbisnuma ñu ngi dalal mbooloo mi ñépp ceerno ne wiyaɓe bi nee na leen dal leen jàmm mo salmina ɓe mu ngi leen di nuyu itam ci nuyu islam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ngi leen di wax salaamu aleykum wa rahmatullahi taala e nelal makko e dental julɓe he nee na itam lim nu yóbbante jëmale ko ci mbooloo jullit yi fi teew o wi omo welti nee na kontaan na lool moom Ceerno Yaxya Wele kono ɓesgu makko renndude ɗo nee na kontaan na ndax njabootam ñoo fi daje e banndiraaɓe makko renndude ɗo ak i mbokkam yi fi daje ñu gàttandu la li lu tolloog Cheikh Oumar mënuñu ko waaye nag mën nañ la gàttandu tabarakallahu diggante taalibi rek ak ni muy gàttaloo sëriñam noonu bisimilla ma kon Thierno Mountaga Seydou Mbacké ñu lay wax nga dal jàmm bisimilla nañu dégloonte tuuti jaxade nañu dégloonte koy da jaaru daa makatal gida allah moom tamde en bojol ah. gareji mew seexna umarul fuutiyu ah. taal jaabaara jom gaawe jom fetal mm. maa ngi jéggalu sunu wayjur yi maître daf maa ngi laa jéggalu ne kii nga may kaddu nee na loolu moo tax ma jël kaddu ki nga may kaddu loolu moo tax ma jël kaddu Ceerno Muntaka Seydou Makki Seydou Makki Nuuru Cheikh Oumar Ceerno Muntaka Seydou Makki Nuuru Cheikh Oumar Seydi Tall nee na sama diggante ak yow yàgg na yow ak Ceerno Abdul Taal mii kon su la yàlla andee nga teew fii ñun ñëpp xam nanu ne Ceerno Nuuru waay waay munul nekk fii di xëccoog Ceerno Yaxya Adama Sall ceerno nuuru sëriñam la jinnaaɗo makko la xaritam la allah dajale na programme yi bés yi nekk benn bés waaye nag mu ne ceerno yahya balaa maa dem fenn fii laa njëkkee ci yow ah, ndeysaan loolu waay waay loolu rëy na ci man nee des nag enen fof eɗen nganndi hol ceerno ñun ñëpp xam nañu kan mooy ceerno montaga eɗen nganndi ñun ñëpp xam nañu hol abdoul kan mooy ceerno abdoul tall ene ñi fi nekk ñëpp ñu baax lan kono kamɓe allah fecci waaye ñoom nii la yàlla séddale woni tañiraaɓe cheikh oumar ñu nekk ay sëtu cheikh oumar noon bis bismilla maɓɓe maa leen di wax dal leen jàmm ceerno montaga ceerno mountaha seydou ceerno abdoul tall ceerno abdoul tall min ak ñi ngeen àndal ñëpp bisimilla moom dal leen jàmm nasrullah neen nasrullah konngol kañel naaɓe fof ne ak kaddu waa kanel ñëpp fof ñu yewoon bisimilla ñu ngi leen di wax bisimilla sa sa no so noddino téléphone tan nee na ndeysaan su ngeen wooti woon téléphone rek mbirtima ɗo ngeen rek jaar ngeen fii ceerno nuuru jàll ngeen dem ci ceerno nuuru loolu rek doyoon nañu bu ngeen romboon rek woote téléphone ne dem ngeen ci Thierno Nourou loolu rek doyoon nañu. wala mbiyoon on jamiri wala sax ngeen di joxe ngeen ndigal. ñun nañu ñëw fekk si leen foofu. ñun ñëpp ñu ànd ak bâche yeeg ñi fi ñu teewoo ñëpp ñu daal di ànd dem foofu. waaye nag Thierno Mountakha. ñu jox la kàddu bi. même bu dee benn kaddu ñu daal di lay sa kàddu. mu dugg ci kàddu Thierno Nazirou Tall. Abdoul wala mu dugg ci kàddu Ceerno Abdoul Tall yónni mi loolu doy nanu bu jeexee nag bu jeexee sama sëriñ sama xarit ganduɗa ko ñaamoma ki nga xam ne sama loxo ndey joora sukaaɓe kanel yi nekk kanel nekk ay xale ñun xale yi laa wax de ñun ñëpp kooku mooy ki ñuy niitoo moom la ñuy xoolee ci moom di ci moom waaye kooku bu desee fii dafa mel ni yow yaa des salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee maa ngi nuyu mbokk jullit ñëpp o wi omo salmina dental julɓe ɓe fof nee mi ngi nuyu mboo waa kanel yëpp o wi omo salmina kanel naaɓe fof ne li dalee ci surafa yi fi teew o yi ki tuggude tan e sarifaɓe wonɓe ɗoyde o wi sharif abdourahmani nena sama harit ceerno abdourahmani ba o wi sehilam ceerno abdourahmani ba ak mboolem julliɗi fi teew o wi wonde e denndaangal musidɓe wondaaɓe o wi mi salminiiɓe mi rewni ceerno yahya adama sall nena maa ngi leen di ñëpp di ko jaarale ci loxo ceerno yahya adama sall nee na ñun suñu ñëwee fii ñu nekk euh, Abdoul Tall o yiminen somin ngari ɗo wondude e eh, ceerno Abdoul Tall amin poti arde ɗo ñun kono warnañ fi teew ñun ay taalibe fiilanu o yiminen kamin almuɓe ɗo nee na ñun waa kanel ñooñu jàngal o wi ko kanel naaɓe jangini amen ne waa kanel ñooñu yar o wi minen ko kanel naaɓe nehi amen o wi ko kanel naaɓe teddini amen mune wa kanel ñoom ñooñu teral o wi kanel naaɓe pewni amen mune wa kanel ñooñu defar yal allah waɗ hakkunde men en gona haaldoɓe ko moƴƴitimo allah yallah yo allah desiñu diggante ñiwa hande lu baax te yo allah tah yo allah waɗ en yarlaɓe yaafaɓe def ñu ñu bokk ci ñoo xam ne dañ leen yëremi yo allah hokku en battanɗe moƴƴe ɓe jaahi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yalna yallah may ñu mujjantal bu baax ci barke yonente bi sallllahu alayhi wa sallam ya barke joom ñalawma o ya barke borom bés bii de sayiduna mouhammad sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayiduna mouhammadin wa sallim allah jaarama on jaarama nee na jërë ngeen jëf ginnaaw bam leen nuyoo di nuyoo soppeem bu ñuy wax Ceerno Yaxya Sall Adama caggal nde o salmini on o salmini ceerno men ceerno yahya adama sall nee na mi ngi leen di nuyu yéen o wi omo salmina onon pop di jiital nuyoo bi nag surafa u yi fit yàlla dimbali ban to rot ci jataay omo ardina heen surafa u en ɓe ngannduɗaa ɓe ko kamɓe ngardi dental ngal ko kamɓe kadi mbaɗi couleur dental ngal maître euh, député moussa sane na o yi député moussa sane nee na mi ngi sàkku ci ñaan ginnaaw bi nga xamee ne sant na yàlla ci ndomba tànk bi ko yàlla jox muy sàkku ci yéen ñaan o wii caggal nde allah rokkimo macha allahu o dañi ko wiyete ko député o wi wonde omo o caggal nde no woni omo ñaago yom ɓeydan mo duwaw ba ndomba tànk bi ko yàlla ràngal mu wayaf ko ngannduɗaa ko e haajoni omo ronda ɗum mbel ma allah wallumo haajoni ɗum hayfa e makko ndax moom liggéeyal l'islam rek ak gox bi rek moo ko ñor sabu kanko ligginaade islam e ligginaade haa joni wuro ngo tan ko ɗum haa joni ɓenndi mo moo tax nag mu ne kaddu yi kon du bari ɗum waɗi o wii konngudi ɗi noon keewata moom daal day sant yàlla kanko daal omon yetta allah bi ko yàlla dimbilee nde allah walli mo nde ba fekke ko haa o tawa jataay bii ha joni dentalngal ɗo kono yalna yallah defan ñu sutura wadde yo allah waɗan en sutura yalna yallah nanngu yo allah jaɓan en ko duwa ko yalna yallah barkel yo allah barkin dental ngal wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن وهن العذم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا li jiitu may wax dara mooy ñu ngi nuyu jullit ñi fi teew ñëpp. alhamdulilah rabbil alamin. ñu ngi wax naan alhamdulilahi rabbil alamin. ñu ngi jiital ci nuyoo yi surafaaw yi. ñu ngi ciy toftal ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam yi ronu tànt bi. ñu ngi ciy teg itam suñuy waajur yi fi teew ñu ngi ciy toftal itam mboolem soppeek xarit yi fi teew nee na ak bëgg rek jotal euh, kàddu kër Papa Alpha ardinde an jiital ki nga xam ne mooy xalifa di Ceerno Oumar Alpha miñiraaɓe muɗum aki rakkam ñëpp dillangal ɓesgu ba alfa fof ak mboolem njabootu euh, ba alfa yëpp wiyama ɓesgu baba alfa noon kanel e diwan kanel fof naati heen ñu ne nag ba alfa kanel ak diiwaanu kanel yëpp dugg na yidde baba alfa kañum denndaangal seernaani pies ko jibini eko eko taari ɗum e neena ba alfa moom coxeelam moom teqaliwu ko ak kenn doomam njabootam yeeg ak taalibe yeeg ak ñëpp la yemale e, e ngi santal yàlla nag ki nga xam ne moom moo tax ñu teew fii di ceerno Yahya Adama Sall e ko yidɓe ɗo taade yamirore la rek waaye wax moom ku nekk rek ak nu la yàlla maye jogui hen ko wiyeteɓe yo kal tan kaala ene jogui hen ko allah haalnata ɗumen ko allah yamiri yo kaal am na ñoo xam ne ñoom dañ leen di jox ndigal rek ñu wax waaye am na ñoo xam ne moom yàlla moo leen di wax loo koye yamirteɓe tan min ɗofto yamirode koye ne ñun nag bokk nañu ci ñi nga xam ne dañ leen di diggal rek ñu def wijaay maanaam ñu digal la li si Mansour daan wax soo mënee defal soo mënul defal ñun daal loolu la ñuy nekkee am nag mu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ngeen ñaanal leen ceerno kono ɓuuɓe maɓɓe moom xolam dafa sedd ci ñooñu tamit bëgg na jullit ñëpp daal leen ñaanal ɗono kadi mu ngi ñaanal tamit mboolem njabootam ñëpp haji ceerno euh, men ceerno yahya sall suñu sëriñ ceerno yahya sall miñiraaɓe rakkam ousmane yahya e mamadou ousmane yahya adama ak seen mboolem rakk yëpp ak Ceerno Yahya Sall mi ñaan jullit ñi ñu dimbali ko mu ñaana ñu dimbali ko ak ñaan ak ñoom ah, xolam sedd na ci doomam yi mu ne salaamaaleykum wa rahmatullah ceerno Chérif Boubacar Haydara o wi wonde omon salmina julɓe no feewi o wi

allah tan wonno e gonal mum nde o yiɗi nde ha joni wonnude hunde o an o wonni annabi sallllahu aleyhi wa sallam waaye ci man lañ jogue waaye wokku lépp ci moom la sallallahu alih w o wi min koye allah gummimi kono ha joni julɓe ɓe koye yam gummi waaye loolu waxu teggin la waaye lépp ci moom la jogue o wi ɗum o haali ɗum tan ko sababu ni needi makko kanko annabi sallllahu aleyhi wa kono fof ko kanko omar ndax xam nga may kan omar noppi mu ne ko man la yàlla njëkk bind sama leer xalaqa allahu awwala nuuri wa min nuuri xalaqa allahu o wiino seydina omar est ce que aɗa anndi min woni holon seydina omar yimo ala o wi ko min woni e annoore ko min allah adi tagde binde sama leer mo xaaj ko ñeenti xaaj bindi ci arach a courche ak lawhu beneen xaaj yi mu xaajoo kon ñeenti xaaj o wi ha joni nde ɗuminimi no windimi nde o windi arsi e coursiyu ha joni o kadi heddi ko kadi o waɗi pecce goɗɗe oy limdi limba lim lépp lu ñu mën a tudd sallallahu wa sallam o ha joni o limi o limi ha o ganduɗa hankkadi o natti wawde limde mo wax eh, kuntu nabiyan alimu bi nubuwati wa adama bayna almaai wa nekk naa yonent xam man yonent laa boobu adama moo ngi nekk diggante ndox ak ban o wimin mi woni annabi kanko seyiduna mouhammad ko kanko haalata de o wi mi woni annabi nde gonmi nde annabi nden annabi adama na woni hakkunde ɓakkere haajini e ndiyam ɓe sampal drapeau minen fiila kiimo liggel yononti o wi kala liggantoɗo ha joni machallah annabi sallah alih a waɗante drapeau wiye wonde ko oɗo ha joni ligganto annabi sallah alih sallam hono tan gouverneur en so mbaɗama walla député walla chef de quartier mbaɗne ha joni hono drapeau honon ɗo e aduna tan annene ko noon watte toto to laakara o wi ka goto e nder mabɓe min calmini worɓe ɓe min calmini rewɓe ɓe mantannoɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe min calminiɓe no feewi ceerno abdourahmani ba a ak ceerno ahmad to hoore fonde doomu ceerno ahmad ci hoore fonde dafa ñëw fii ci ndigalu magam muy ceerno bokar alpha démba ci ngoon bi ma sëñ bi ma ci sunu kanam la nun ñëpp nee na mu ngi ànd ak noonu. nee na tey nag moom mooy wax cere Bokar. mu ne guddi ak bëccëg. mu ne diggante mag rakkam yi. dafa mel ni rek nga ne guddi nga ne bëccëg. benn la rek. moom Ceerno Abdourahmane nag. nee am naa ci moom beneen xaas sama xarit la bu baax a baax. comme Thierno Zeyni ak Thierno Ousmane si ni ñu nekkee sama xarit ak Thierno Saara Sam. nee na nekkul sama sëriñ rek jëm fa de. sama sëriñ la waaye tam sama xarit la. mi ngi ànd ak Thierno Mountakha nag. Euh, xam naa incha allahu dina wax délégation bi mu waxal bu mu nekkal. nee na lii yëpp dañ doon bëgg rek dalal ko rek. فقد أسرفت أملاكها وتجلتي كوكم سيدنا محمد رسول الله ñu ngi nuyu mboolem ñi baax ñi fi teew mboolem borom xam-xam yi fi teew ak imaam yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. en mbawa haaldude ɓe kamɓe fof en mbawa kadi dejjidde ɓe kamɓe fof nee na munuñu munuñu leen ñoom ñëpp waaye tamit munuñu noppeendoo ñoom ñëpp o ko kikiiɗe juɗɗo fof kono ko adresse o ko kanel nee na konke yàlla dogal la ngoon gi ngoonu jullit ñëpp la waaye nag adresse bi kanel la eh, no ceerno moutaga wino ɗo jooni ni kanel ko wuro e guro seeranɓe men nee na ni ceerno ni ko ceerno waxe woon léegi rek nee na kanel dafa bokk eh, ci barab ci ñenn ci suñuy sëriñ koye nokkuuji ɗi min janngi koye nokkuuji ɗi min taggii ganndal dafa bokk ci barab yoo xam ne jàngee nañ fa tey dem itam sàkkoo nañ fa xam-xam baha on nema sabu hay somin ɓooyan ɗon komin ƴetti ɗon ko min jejjitta ɗum nde tawno ne jogee amen doole e geɗol nee na duñu sëkk jëf ndax loolu tabarakallahu yàlla def na ñoom am nañ ci ñun cër te foofu na jàngee nañ fa loolu duñ ko sëkk mukk tawi toon janginoɓe moƴƴuɓe laaɓɓe deedi nañ fa ñu baax ñu laabiir ay borom xam-xam yu mën a dimbali taalibe te jàppale ko jangguini min no feewi laaɓani min kadi duwani min kadi nehi min ɗiɗan ñuy janggal daan ñuy yar tabarakallahu daan ñuy tamit tabarakallahu def ñuy xam-xam dafa laayeyu biir ceerno samba sal kanel woni woni ko hoore e samba kal eh, ceerno samba eh, sall kanel moom moo nekk bopp moo nekk ci bopp ba yirmande allah e woni makko yalla yirmande yalla dotteeko ci moom tawi toon mawɓe moƴƴuɓe kadi min waaye itam fekk nañ fa ay mag ñu baax ñu barkeeloo yu ñoom ñu nekk ak ñoom ñamtinde ɗumen saabu sifaji joɗiɗi min jii men e barkinorade yiide ɗumen ɗi ko dale ci roy leen ak gis tamit ci ñoom ay melo yu rafet yoo xamante ni yu neex roy la ene hoore ɓen jinnaɗo men baba alpha ibrahima nee na bokk na ci ci njiital ba ba ibrahima alpha ganduɗa moƴƴuɓe fuuta fof ene jaɓani ɗum moƴƴuɓe fuuta fof ene ki xam ne macha allah ñi baax ci Fuuta ak magi Fuuta borom xam-xam Fuuta yëpp nangul nañ ko. alhamdulilah bés nga makko nan do cena alhamdulilahi njabootam ñu ngi fii teew mum ceen ñum ceen Ahmad Tijani ak ay rakkam galleji moƴƴuɓe kanel ɗi fof nan ɗo ñi baax ci waa kanel ñëpp ñu ngi fii teew ɓesnu baba ceen Abdourahmane Banaji nan ɗo nee na njabootu ceen Abdourahmane Banaji ñu ngi fii teew ɓe tan tan kaali ɗumen en kaali kanel fof en kaali damga ñii rek suñ leen tuddee yëpp waaye tamit tudd nañu dam nga yëpp jàng ak comprendre bokkut ɗum waɗi goto e halifaɓe law tijani ene moo tax kenn ci xalifa tijaani ñu koy xamee beddi mursidina radiallahu taala anhu laysa waykum ilmu lisani bi ilmin innama al ilmu xashyatun fi l fuadi o wertikke mukko jala bone mon ko gandal ɗemgal kewgal ngal allah winal allah wi ko gandal kono woto cikke ko ɗon gandal haaɗi gandal ko annoɗo kulo allah ñiiɓata e ɓernde nurɗina ɓernde nde faama ko allah muuyi e geɗe muɗum neena xam-xam daal nekkul ne rëy làmmiñ comme mel mel ni man rek tabaarakallaahu nee na nekkuloo may xam-xam xam-xam mooy tabaarakallaahu xam-xam bi nga xam ne sol boole ci tamit mu ànd ak leer loolu mooy xam-xam waaye nekkul xam-xam boo xamante ni da nga tabaarakallahu moo tax mu ne jàng ak comprendre bokkul ayiyat hannde soko tokoo so jaaroo e duuɓi seeɗa ko janngi ko heewaani ko rewi allah ko heewaani mbiya mo waliyu allah kaari yii nelaaɗo sallah sallam o wima wonaa goonga nelaaɗo allah neɗɗo waawa yiɗumen allah maayi ma on duuɓi nee na da gis xale boo xamante ni ay atam bariwul li mu jàng bariwul mu ñu ne ko diw sëriñ nangam gis na yonent bi salaay loolu du dëgg mënul nekk mënul gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu nañ ko moytu lii daal dañ kaa def rek ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te itam am naa yaakaar ne lii ñu bëggoon ci bés bi yàlla may nanu ko ñun ñëpp dañu waxoon ne bëccëg bi dañu ne bëccëgu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la démb jàng nañ fi burdi te loolu tagg bi sallallahu alayhi wa sallam tey yendu nañu jàng alquran ah ci njiital suñu sëriñ Ceerno Ibrahima Ba itam yàlla defal leen guddi gi tamit guddee nañ wax yonent bi sallallahu alayhi kon alhamdulilahi rabbil ah, maa ngi leen di sant bu baax maa ngi sant El Hadj Ndiaye ak soxnaam Mariam Ndiaye maa ngi leen di sant bu baax yàlla daal li muy def moom rek moo ko xam eh, yàlla mi ngi ko jaarale ci loxo Ceerno Ousmane Sy Mariam Ndiaye moom ak Mariam Ndiaye moom Mariam Ndiaye ah moom jarbaatam la ak Ceerno Ahmad Yahya Wele man yëguma ci daara ñoom ñoo toppatoo lépp ñu ñëw fii kon yàlla yàlla fay leen gën gaa amin biye amin amin amin jaaraama Ceerno Chérif Boubacar Haydara jërëjëf كله أيوه مقتدل وأنت الإمام وتخطى وتخطبت لصلاة مسلم لسان كله يوم يب مقتدل وأنت الإمام مصطفى وتخدمت لصلاة فسر له كله مبتدئ وأنت الإمام